waa ñu ngi lay char bu baax. Euh, tey nag ñu ngi la fekk fii kër sëñ Cheikh Oumy euh, di euh, doom ci kër gi bésu màggal gi tey ban mbégte nga yëg. salaamaaleykum wa rahmatullah moo ngi sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul ginnaaw loolu li ñu laaj dañ ci am mbégte bu baax a baax ngi sant yàlla gi nga xam ne Serigne Touba woote na ko. ne kaay leen sant lu ma yàlla ba adduna sosoo ba léegi mel na moom lañ dégg ci ku woote wooteem bii ne leen sant la ma yàlla ana cant gi nag lu mu doon loolee moom lu aji waxtaan wu yaato yaatu waaye li nga laaj rek cant gi moom day sedd suñu xol euh, li tax muy sedd suñu xol mooy dañoo xam ne li taxoon mu woote sant yàlla gi tey jii ku ne gis na ko ndax jamono ji ñu koy woote moom bari won na ay xew-xew yu am rawatina yit jamono ji nga xamanteni bi ne woote nañ ko ci eh, jamonoy mbass mi nga xamne mom lañuy tuddé coronavirus euh coronavirus. ku ne gis ko ni mu lëmbee ci aduna bi. Eh, waye nak ñun mom yoonu rek yag na doxé noonu ndax nim doxé ba ex fi mu ex ci ay difficulté rek la rawati rawatina yit bi señ Modou Moussa di taxawal jumaa Serigne Touba ji tubaab bi taxawon gantal ne do ko fi defé teg ko ay métti ne balaa balaa balaa raay bee ñëw ay métti koy gas mm. yooyee du mu Moustapha taxaw ci bi Serigne Fallou yi woote jumaa jumaa jet noonee la demee waat ba mu wootee màggal bi mm. kon nag ginnaaw egsi nañ ci tey tombe ci doon ay tuut tànk tombe ci lu mel nii muy ay difficulté ku ne jàppoon ne màggal gi dina demee neneen waaye ñi koy waxee dañoo xamul sëñ Tuubaa kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf sang bi asalaamaaleykum mbokk internet yu Diassigui TV ñu ngi leen di bu baax di leen siyaar tey nag comme ni ngeen ko xamee ci bésu màggal ñu nekk fii ci kër sëñ Cheikh Oumy euh, Serigne Fallou Mbacké nga gis ci subaak léegi jàngum xasida mi waaye ci suba ak léegi Sam bi euh, mbooleem kilifa jaar fi siyaar waaye ñuy amal màggal gi comme ni ko Serigne Touba no waaye ñu ngi euh, nekk ak nag euh, ki nga xamante ne bi mooy Baye Galas mu Serigne Cheikh maa ngi lay siyaar di la nuyu bu baax. waaw jërëjëf bu baax seen Baye Baye Galas ginnaaw bu ñu la nuyoo itam sàkku ñaan li ñu lay njëkk a màggal gi tey ci ni ñu ko amalee. Euh, mu nekk loo xamante ne bii daanaka anam la ren bu wuute ak anam yi fi daan am euh, tey bu ñu dee fàttaliku lan moo la gën a marqué ci anam yi mu daan am te wuute ak ren jile mm-hmm. waaw comme ni ñu ko waxee rek dañu dellu di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant baax a baax a baax di ñaanal Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ko ñaanal mboolem fu sëñ Tuubaa def dara rek di ñaanal suñu kilifa laa ji see xam ne moom si am fadam di ñaanal suñu borom di siyaar mbokki taalibe yi yëpp comme ni ko waxee rek man damay jàpp ne murit moom mu sëñ Tuubaa woote coppi ko du ci am ci moom xañ na nag jamono nekkoon na ci xat-xat waaye gëm nañ ne tamit bisub sëñ Touba bii ak murid yi ni ñi nga xamante ni noonu lañu wuysee ak liñ ciy def ci lu baax lépp ñu gëm naa ne lu jamono xat-xat bi bu bis bi jàllee suñ borom mën naa def tawféex bu baax a baax a baax daam nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax Mbacke baal euh, euh, tey jile ban mbégte nga gën a am en tant que doom taaw sëñ Cheikh Oumy mu sëriñ Fallou mbekté contane ci talibé rek wax deug yalla da xamnañ ni liñ def pass pass lañ ko defé ndax bo xolé liko dalé ci tay la talata waaye la tambalé ci dimanche ba tey nit ñangi ngi fu ci gox yi ñew ci bisub sëñ Touba bi ngir wotem bu reuy bi lolu nak wax deug yalla niko nit ñi di defé doon na yëg-yëg bu reuy ci ñun wax jamono xatna te bëri na ñoo xamante ni tamit ñi ngi bàyyi li xew ci jamono ñu ngi koy bàyyi xel waaye teewu taalibe yëpp àndandoo nañ am pas-pas ñoo wujj si sëñ Tuubaa pas-pas boobu ñu am nag yal na leen sëñ Tuubaa fekk si ba faj ci seen aajo barke Seexul Xadiim Mbàkke Balla euh, sa waajur wi di sëriñ Cheikh Oumy nga xam ne moom itam dafa kemaane lool waaye ci kemaanam euh, bu ñu ko jàngatee ci taalibe bu ñu ko jàngatee ci pas-pasam ci yoonu murit waaye itam lu ko lu ñu ko xam-xam yow yaa ñu ko gën a xam lan nga mën a wax ci moom moom sëñ Cheikh Oumy. di wax ne moom moom lim jàppee boppam rek. muy ab taalibe bi sëñ di ko doxe di ko waxe te képp ku muy waxal tamit loolu la lay wax mooy fas yéene nekk taalibe bi sëñ ndax day faral di wax ne ñoom lañ amoon seen waajur wu baax a da ko jaay jënde ko ak taalibe kon ñoom taalibe yi ñooy seen i lu ñu am tamit. lépp lépp lépp taalibe yi la. waaw moom daal ab taalibe la jàppee boppam. ñun ñii tamit ci biir këram gi ay ab taalibe lañ ci jàppe suñ bopp. moom daal xanaa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér. ci barki Seexul Xadiim. ay moom daal ab taalibe la jàppee boppam wax dëgg yàlla. Agassa Mbacké lan ngay dénkaat nag taalibe yi. ñu gën a góorgóorlu rek. nga xam ne sëñ Tuubaa moom. lam daan wax rek ne suñ borom nee na suñ borom defar na léppam ba dara du ci yàq kenn tamit mënut ci tee defar defarati dara ndax léppam suñ borom moo ko defar kon dañuy jéem defar ba defaroo ci rek keneen ku ci jéem leneen tamit man damaa jàpp ne danga ci jële leneen rek waaye li muy am moom suñ borom defal na ko ba pare ñu gën a góor góor rek gën a yokk pas yi gën a yokk gëm ji te xam ne moom lépp luñ bëgg ci àdduna ak alaaxira suñ borom defal na ko te yéene waat na ko mbindéef ndax boo xoolee ci xasidaam googu muy muy yaa raxmaanu yaa raxiim la tàmbalee ca rabbi bi maa yasroo wa ca maxawtamaa xat naa loolu lépp yërmande lay ñaanal mbindéef ci suñ borom kon yërmande jooja mu yéene woon bindee fi yàlla na dal ci seen kaw ci barke Seexul Xadiim rawatina ci bisam bi nag amin yaa rabbil alamin Mbàkke Balla euh, euh, ñu bàyyi la nga tàggatoog euh, mbokk yi nag mbokk taalibe yi ak waa Jaasi gi TV ak Samir mii di taalibe ci kër gi mm-hmm. di sant bu baax di leen sant bu baax ndax lii ngeen def sedd na seen xol lool wax dëgg yàlla bàyyi seen yitte ñëw dal ba pare lu ci war si mu jëm ci wàllum jàllale ngeen koy defee nii ngeen koy defee te seen duwoo leen ci dara da ngeen koy def ngir jëm ni sëñ Touba sëñ Touba mi tax ngeen di def rek yàlla na leen fayal boppam suñu xol sedd na ci bu baax a baax a baax sant nañ leen bu baax di sant Sam ndax moom léppam fii la léppam sëñ si yoo xam la doxee na mag waxinam ak léppam sëñ Seexu mi la yàlla na ko suñu borom gën a yokk ba li ngeen ci yéene mu dem ba doon ay télé seet ci barke Seexul Xadiim jërë ngeen jëf jërëjëf Mbacke ñu def ñaan ñu ngi leen di Thank you. jërëjëf jëf mbokk téléspectateur yu Lamfal TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dellusiwaat nañ nag li nga xam ne mooy euh, ndaamaatu kër El Hadj Serigne Cheikh Oumy Mbacké Falilou niñ fi baaxoo ñëw yor-yor màggal bu nekk barki démb dikk nañ ci waajtaayu li nga xam ne mooy màggal bi xool waajtaay wi matériel d'hygiène bi ndigal yi nga xam ne waa kër docteur joxe nañ ko Serigne bi fàttali lépp luy jumtukaay fekk nañ ko fi. sëriñ bi taxaw ci ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy dongo yi taxawaay bu mat sëkk ñu ñëw fi nag ñi fi baaxoo ñëw yor yoru màggal bu nekk taataan ay kàddoom moom alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacké Fallilou kon nag ñu fas yéene maase déglu ko ci sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah nayëkkati sëriñ bi xanaa di la uh, sant rek te di leen sant yéen it yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw muy Lamp Fall ak Touba TV di di sëriñ Mountakha mi nga xam ne moo toog jotaay Cheikhul Khadim jàll nuyoo bi ci moom ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di jël di ko teg seen toxum Sëriñ Cheikh jëmb mu tegal ñu ko ci mboolem fi Sëriñ Tuubaa def dara di nuyu tamit nag Sëriñ Abo Mbakke mi nga xam ne moo toog jotaay Cheikh Mamadou Fadel jaarale ko Sëriñ Bachirou mi nga xam ne moo yor mooy sunu jawrin ak Sëriñ Abdou Fatah mi nga xam ne moo yor jaddu euh, kaddu kër bi di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm nag di leen xamal ne rek ñoo ngeen ci jàmm yàlla na nu delluwaat ci jàmm di di nuyu sëriñ Mbacke yu fay nga mi nga xam ne mooy mm, yilif télé bi nga xam ne mooy Touba mooy Touba TV di euh, nuyu sëriñ Alioune Thioune mi nga xam ne mooy yilif euh, Lamp Fall euh, Touba waaw di sant bu baax a baax rek di leen xamal ne moom lii moom wane na baal ba suñu la Lahad waxoon ne bu amul lu ñu def mën nañoo dem mën nañu fee bàyyi sa rajo bi dem ba kon na Guinée wala seen demeen ami ko fa kon nag yii tey mooy télé yooyee kon nag yàlla na yàlla nañu barkeel tey sant ñoom ñaari ñooñu te xam ne talibé yi lañu di ñaan ci sëñ Touba yàlla dafa leen jàmm di sant yéen ñii ngi di ñëw ci yéen eh, buñ leen amutoon mën naa demee neneen waaye seen i discipline ak yaru gi ngeen yaru tax na fu ngeen dem danañ leen jox seen wàcc waaye kon nag ñu ngi jëlee dénk ñi leen yilif ñu gën leen fonk te gën leen teg feneen te gën leen a jox ab sécurité nag ndax jamono soppiku na te nit ki boo ko dee liggéey loolu da nga ko war a kon nag ñu ngi leen di sant rek ngeen gën leen taxawu ndax nag sëriñ bi moom jaamu yàlla leen digal ak liggéey yi te ginnaaw nag jaamu yàlla ak liggéey bu dee jaamu yàlla gi sëñ bi amu ci dara bu dee liggéey bi liñ ciy jox sëñ bëriwu waaye nag addiya ak njaboot gi la kon nag ngeen leen jox sécurité bi te xam ne noonu nag amuñu lu ñoom di dégluwaat nag sëñ bi ba xam loo cay teg ay sant rek la waaye nag sëñ Fallou ko woote woon fii ci fi ñuy wax xaayira booba ay tool la sëñ lu nekkat sama mag ju baax ci dafay ne waaye jëfe wutoon lenn na lu xel mu rafet bi mosu fee jëfe bàtti na mu am mu sa waaye xel mu rafet nag jëfe na ko fi ma dem waaye nag fii ñànk la tudd ma bëgg ngeen fekk ma fi tey ñu màggal ko ndax kat la la dal yonent bi laa bañ ma dal ko mel ni mbokkam kenn gisu ko moom nag damaa bëgg ñu ne ko kapp rek kuy génn yem ci ñun kuy génn yem ci ñun su bëgg na ngeen fekk suma fi ñu màggal ko fi kuy sant yàlla nit da nga dem ba ci moom waaye wutum ndimbal nag kenn ko wut ndimbal ci màggal jàmm moom moo def màggal gi su suñuy bis. kon nag ñu ngi sant baax tey dégloo baax nag loo ci def. Euh, euh, ren bu ñu gisee euh, ci contexte bi ñu màggalee maanaam ñuy wax ko mën a coronavirus sëñ Mountakha Mbacke woote ne faaw ñu màggal mbégte moomu Mbacke na ko jóg. waaw mbég rek màggal moom moom xam nga am murit mm-hmm. boo ne ma mbégte man man passé naa bég. naa ne nee noonu nga mel keneen noonu la mel xanaa kay suñuy pas-pas daal lañuy ñuy màggale noonu noonu murit ñu ngi ci nag mm-hmm. waaye buñ fi jógee. ñan nañ señ bamba yalla nako yalla nako magal gi yobale rek ci barki bal xuraan tay ñaan mucc ak mucc la li ci dess nak moy ñu def li ñu la bi santana rek man le mang koy def maa ngi yor sama samay masque diko tak garab yaangi ni jeli mang ma lepp mang koy def kon nak ta ta nak dama ko li ma ci yor man man man man man na deux euh, ki ki ku dik ma jox la ben ba pare nak yor sa ben ak say diw waaw waaye nag la tax ma di ko def it nag mooy dama koy barkeeloo ci sëñ bi ma gis mu di ko def waaw kon nag ñu ngi ñaan rek ñu teewe ko ay déwéni déwén day sant ñëpp rek di leen xamal ne woote nañu waaye wuy si nañu de min nu wuy see nag noonu taxul nu ngeen wuy sunu de sëñ Tuubaa tax ngeen wuy sunu kon nag ki ngi tax ngeen wuy sunu yàlla na nu fay wasalaamaaleykum wa rahmatullah wala xanaa kaddu yi ñuy daanalee mooy at mu jot di nga ñu jottali kaddu yu gën a fàttali taalibe yi ñu gën a tënk ci ndigal te xam ni suñ Fallou li mu doon wax ni jaay na ay njuréelam jëndee ko taalibe xam ne li fi nekk dara maye ko lu dul ak taalibe maanaam ngir ñu gën a tënkuwaat ci ndigal kàddu yu ñaax ndigal nag boo ko ci tuddee man tam may jox ndigal moo tax damaa mhm. mas a dégg sëñ Mountakha moom sëñ El wax ak moom ba yàgg mu ne ko man de damaa tàmm joxe ndigal laaj ndigal laa tàmm man nag foofa laa toll ma ne ah waaye man de maa ngi ci di jéem rek lu sëñ bi digle ma jéem ca lu ma man ak lu ma mënul lu sëñ bi te dama di ko ba fu ma a yem ma di fa yem foofu laa tënku waaye li des nag suñu maa jox kenn ndigal damay déglu ndigal kon nag yàlla na nu yàlla teg def buñ déggee ndigal ñu jëfe ko te yàlla bu ñu ci kenn gis ci barkeb Cheikhul Khadim wa salaamu alaykum tàllal leen loxoy mu ñaan amin bu baax ak Diassi mi nga xam ne ñëw na fi ñaari yoon léegi di toppatoo euh, mbirum kër gi ak lu fi war a génn mu génne ko te ko yore nag ci kër gi la bokk muy Serigne Sam Seck mm. ak ñu njaboot gi mu àndal ñëpp rek di ñaan yàlla na toll na télé yëpp rek di mm. barke Cheikh Mouhamadou Fadal salaamaaleykum